non yooyu yëpp dañuy wax rek eggaguñ ci parce que li ñu wax balaa ñuy départ waa ji dafa ne dañuy dem taal dëkk bi dégg naa bërki dem léegi maa ngi gis ci ñu ne ay ñu nekk à l'extérieur di wax soo leen demee dem leen kër kilifa yi ngeen taal ko mm-hmm. ngeen euh, euh, violer seen i ji ji xale yi ngeen fa fekk mm-hmm. des choses extrêmement graves ba pare ñun ñi responsable ba pare nit ñi di ci di ko nëpp nëppal ba ñuy avant ñuy départ dañuy wax fu ñu jëm mm-hmm. te lii ñu def nii ku doon attaqué Sénégal doo def lu ëpp lii bloqué économie bi bëgg arrêté électricité bi arrêté ndox mi arrêté euh, euh, internet internet bi gouvernemental maanaam li lépp li nga xam ne ku doon attaqué Sénégal li ngay def. ñoom jéem nañ ko kon cest dire c'était une attaque insurrection contre le Sénégal loolu te nit ñi dañ ko wax deuxième bi moom mooy président de la République mandat bi moom waxagul. ñu ne ko par force da war a wax te wax ji dafa day jotagul wax ji xam nga kañ la jot moom mooy conseil constitutionnel ba nit ñi jógee dem joxe ji seen candidature. Mm-hmm. mais est-ce war na xaar ba loolu. mais ko ñu ko bañ a xaar mais pourquoi ñu bañ ko xaar. lu tax ñu ne parce que les gens n'ont pas trop apprécié li mu wax keroog début. mais loolu li mu dialogue bi chaque jour ma wax ko. li mu wax ba xam nga lan la alxuraan kilifa dafa am lu ñuy waxee moom. ñëwee am na loo xam ne su la ko waxee lu mu même su nekkee ci dëgg la nekk doo ko jox sax ñëw fekk la nga toog ni ko eh papa waaye papa kilifa dafa am tey ak teg ak warma boo xam ne dañ ko ko war a jox moom daf ko doon wax ni un peu dans le pour dérider atmosphère bi moo tax mu ne soo leen ko soxla cër mais taxaw fii gi ne président doo nekk candidat mais kan nga war am droit ne doo nekk candidat kenn kese la mooy conseil constitutionnel ay nit yu ñuy fay ñoo xam ne dañu am xam-xam jàng nekk ay sénégalais ba pare ñoom ñu ne leen yéenee arbitre bi match bu am football bi léegi arbitre bi mooy tiré penalty Manchester Inter mais yow nga nekk ci biir par force arbitre bi xool tiré penalty bi mais kenn moo mën a tirer pénalti fii au Sénégal mi tudd conseil constitutionnel c'est le juge constitutionnel yow su la neexee nga dem de candidat nga am nga ci droit mais soo demee ñu ne xool kayit daal ne mënoo koo nekk nga génn président de la république bés bu demee conseil constitutionnel joxe fa yeeg waxugu ko nag de mais bés bu demoon ba joxe fa te ay kayitam matul mais dañ koy delloo mais su demee kayitam mat da koy jël am na droit daal ne man mii bëggumaa dem mais ñun tam am nañ droit ne moom la ñu bëgg mu